que depuis que le programme euh, ñu ngi koy déroulé est-ce que par rapport aux études yi ngeen def par rapport ak suivi bi gis ngeen que ne li ngeen ci doon séntu yéen a ngi ko ciy gis dëggantaan. c'est une am na benn évaluation d'impact du programme national de bourse boo xam ne def nañ ko mm-hmm. banque mondiale moo ko def le rapport est sorti c'est pas encore partagé mm. mais le programme de bourse a un impact positif sur le niveau de nga foog ni bu ñu waxee ni que la pauvreté est passée de de par exemple quarante sept à trente sept virgule cinq points yi ñu gagné yooyu mais programme de bourse de sécurité familiale joué na si un rôle important un rôle important am na ñoo xam ne avec la bourse rien la bourse même waxagoo projet yokk koom-koom. Mhm. génn nañ si y a des cas yoo xam ne ñu ngi fii à la Médina koo xam ne avec la bourse parce que am na benn même à Tambacounda on a été là-bas lors de kii visiter benn même bourse bi buñ ñu la régulier ñu dem kenn ki nekk Médina dafa dem commencer saaku farine fekk elle vivait dans des difficultés sonn biñ ko joxee bi dafa dem jënd saaku farinam hmm. jënd suukaram commencé bañ mais tey dafa yore benn benn pâtisserie lañ koy wax parce que dafa takk ndigam ba mu dëgër. Hmm, hmm, ba dafa le petit commerce marge bénéficiaire dafa rëy la petit commerce marché bi su fee fekk tombé ak kenn koo xam ne mun na gérer. mun na gérer surtout ça mun na gérer. loolu moo tax loolu mooy d'ailleurs importance li ñu leen di accompagner dans dans dans le projet yoo comme ñu def jox la formation le